man maay Basirou Ndao Banjul euh, member of the regional executive MPP waa Banjul laa Banjul laa dëkka Banjul yaroo Banjul laa màggee te Banjul lañ am as little bit xam-xam bi ma am ci ci climate and climate change li xew Banjul flooding issue lañ amoon flooding amu fi su su flooding amoon ni ko man maa yow tey duñ taxaw fii tey less than euh, hours ñu taxaw di wax outlet moom moo amoon problème ndox bi mënut a dem and nature su su tawee nit taw bi nobody's in charge but right now sorry, demee ci mbedda bi ndox bi yëpp dem na but secondly the project it is a very good project waa Banyul appreciate nañ ko gis nañ the president is a visionary leader ñëw na rescue na Banjul li fi def over 22 years of bi fi Yaya Jammeh demee bi fi Ya Jammeh nekkee yaay Yaya Jammeh defaluñu ko so waa Banyul appreciate nañ project bi So waree Banyul. di nga gis ne project bi premier is a five year old project waaye fi mu right now under two years gis nañ development gis nañ development yi am ba pare always li ma dee wax Banjul mooy Gambia Banjul doesn't belong to anybody Banjul belongs to the whole nation mooy yaakaari Gambia mooy xooli Gambia fii la économie bi di doxee fii la yëpp di doxee so suñ ko defaree foog naa ne war nañoo defar Banjul te ñu ngi cee gërëm président bi ñu ngi cee sant administration bi ñu ngi koo ñaan mu yokk waaye bu mu wàññi. Ah, soo soo cegee cleaning bi ak ak débris yi yi yiñ dee saani daf koo cause ba pare also drain ah, drainage bi ñu ko réhabilité réhabilitation bi pareegul it is a five year project boo xam ne pareegul soo cegee ring canal bi yooyu yëpp defaraguñ ko soo soo soo seetee loolu ndox bi du mën a dem because mbalit yeeg yooyu soo mën soo soo seetee right now maa ngi dem boori Albion Place Allen Street maa gis ne contractor bi ñu ngi ñu ngi ñu ngi clean pax ñu koo ñu ngi koo cover ñu ngi koo cover with slab so loolu dina éliminer waste bi fan nit ñi di dom so ñun li ñoo lifin rek mooy ne local government local councils yi pour ñuy collect waste regularly ba pare ñuy ñuy ñuy make sure ne tamit ñu ngi sensitize nit about waste naka la ñoo sànni waste and how to uh, dispose waste how to manage the waste that that is been generated so no matter how, no matter what good of a project it is if you don't maintain it if you don't do a proper job try, trying to keep it intact it, it will fail so the, the president can do all he wants to do for Banjul but it's us Banjulians to make sure that we maintain it to make sure our environment is clean ñoom fan la ñoo sànni mbalit yi ak yan mbalit la ñoo sànni because soo seetee drainage bi it is not for mbalit drainage bi pour ndox bi mun a dem la so if if only water then then then du am ñu jël mbalit yi matériels yeeg yooyu di ko sànni ci pax bi of course dafa dafa block ak plastique waste yeeg yooyu noonu yëpp. so ba pare maa ngi gis social media bi ku ci nekk slap ko cover ko nga nga du lifinati so and i think it is it is the local government the councils that that that, that, that should be doing the the regular cleaning and the community as well because the community belongs to all of us we are the one who live in the community if you don't take care of our community then we will have all kind of disease cholera uh, malaria any kind of disease you name it so i think that it is we all have vested interest to make sure that we protect our environment we clean our environment that, that is where we live and banjo is the capital city of the gambia so any important dignitary, this is the seat of government. You come and see the Minister of Finance. You will come and see the President. So I think the project is, is for us, for Gambia It is a good project. Te ñun xam nañ ne dina njëriñ Gambia I Waaw maa represent the business community because liggéey Banjul la. Keneen nit moomu ko common board jàppalante Banjul because Banjul it is not about politics. I feel that right now it is not a, it is not the time for us to politic. Right now it is the time for us to work and develop. In the development, develop the lives of the people. Because for the last years, Yaya Jammeh dafa nekkoon fi nax waa Banjul wax wa bu ne ba pare 22 years gis nañ naka la mbedd yi mel. years ago rek mënuloo dugg fenn biir Banjul nga nga because of time yi nawet moom bul doo ko venture. normally su ma duggee Banjul Independence Drive laay living toppatoo li ma toppatoo génn génn génn right now mun naa dem Tobacco Road mun naa dem So Lolo Nyungo on the on the three. So I think it is it is a job that nobody can discredit. You know, we, we, we owe that we owe that sense of uh, gratitude to the president and his administration because they are doing a good job for, for Banjul. You have some politicians who want uh, Banjul is not a priority. If Banjul is not a priority, then nowhere in the Gambia is a priority to be developed. Because Banjul is the seat of government, Banjul my economy be, fila, fila, fila, everything Not even Banjul, but greater Banjul, Fila Birkama should be developed properly. So you know, development in your army, and I think it's good. There, there are more projects that that, that we should uh, we should look into. That is what I would encourage, but not to discourage to bring development to our capital city. Because if, if our capital is not developed, then where do we develop? Man, I'm ready to work with anybody that wants to develop Banjul. You know, we have we all have to set out uh, set set aside our political difference or our political uh, opinion or ideology. We just have to come and work for the for the for the better good. You know, when it's time for us to campaign ñu tasaaroo dem dem dem fa ñoo dem su loolu passé we come back to, we come back again to, to, to, to develop but we should end the era of permanent campaigning so as, as politicians I think there is time to campaign and there is time to work but you're going to take the time to work and you want to campaign forever then then when do you make time to, to, to develop LinkedIn campaign on? Then you will never have the time because you're always in the campaigning mood, which will never live in. So I think we should bring all, all hands on deck. Japale President B, Japale local government B, Japale ward councillor C, jàppale ñëpp ndax Banjul mën dem kanam because Banjul pour ñëpp la ñëpp ñëpp fi moom parce que am nañ fi wàlla soo demee URR am nañ fi wàlla RRR CRR ñëpp am nañ fi wàlla fii mooy Gambia dafa dafa bañ be léegi soo jàllee soo demee dañ laa laaj lan la Banjul wax on naka la Banjul mel because ñëpp this is they look up to if you go to America everybody looks up to New York because New York it is you know it is, it is not the capital Washington is the capital they look up to Washington and they look up to New York because that's where Wall Street is, that's where every, everything happens. So Banjul more more is in New York City as far as Gambia is concerned. So I think denko wara cherish, denko wara value. Ñun ñëpp wa Banjul bu no matter ban political party in bokka su waxtu liggéey jotee ku ci nekk seet lan ngaa mën make the lives of uh, of waa Banjul better the youth are here we could we, we, should we should be thinking about employment empowering jigéen amga. there are so many things that we we can do mun ñoo njëriñante so I think ne it's about time pour ñun ñëpp ñu jóg liggéey pour man Hadim Gay Hadim Gay is doing a fantastic job he is doing a perfect job as far as I am concerned and président bi wane ne Banjul yëpp la ñoo defar waaye li ñu war a defar ci juróomi at nag munu munu mënut a pare mënut a pare in two years and we all understand the financing issues yi yi am ci project bi xam nga the president the government inherited a debt boo xam ne it is it was it was very high so it was very difficult to even find the financing the the proper financing pour finance project bi su ñu bu contract bu def lii jël jël bi duga ci jàppa ci bem door ni konte du door ni konte man maa yóbbee léegi ñu a ñëw ñu Banjul ni meloon five years ago bala fi Yaya Jammeh di génn laa yu bëri doo fa mun dem su su boobaa nit ñi dañoo tax bi liggéeyu fi mu mu ngi liggéey ñu ngi criticize naan wax ju nekk nga ciy dégg soo tey dégg naa ci soo milieu ku ci nekk ku ci nekk nga bugg a nekk expert soo foog naa ne pour criticiser mën ngaa mën ngaa criticiser constructive criticism moo baax su fekkee ne nit ki mu ngi def dara nga ne ko ah lii de moom foog naa ne soo ko defee woon defee dina génn then then we will all like to hear that waaye but we don't like just nga criticiser ba pare mënuloo teg dara ci table bi soo soo criticiser li nit ki di def kañ jokkoo another option ne ko soo defee step one step two step three I ku nekk dina dina dina welcome loolu. you know project gi I really appreciate contractor bi li he's doing a good job we have nothing to complain yoon yi baax na liggéey quality la ñun ñëpp gis nañ am not. i am not. ne ah, yoon yëpp dina durable di dina yaga. you know because ku gis concrete we pare dañ your tech teg asphalt ak you know. we pare ñu ngi war a réhabilité drain si sewage system bi so I think we cannot ask for more than that What banjuli? yi ñi dëkk Banjul ñoom ñoo war make sure ne lifin ah, nañ environment be. protect nañ environment bi because waste si kër yi la day jógee so mënuloo am waste sa biir kër nga sànni ko ci mbedd bi and sa environment la foofu nga dëkka understand nga so because you know am na areas soo soo soo demee Johnson Allen Street ak Lancaster am na benn tax bu màggee du fa nekk soo demee ñëpp waa koñ bi foofu la ñoo jël di fa dump waste which I think it is not healthy for the whole environment because dafa nekk breeding ground pour so I think as much as the council you get, you get, you get, you get clear the waste you get try to clear the waste so I think the people should also contribute to to the cleanliness cleanliness of Banjul so it it is all of us the the community the local government, the central government, we are all part, we are all part and parcel of this, the solution. We all have to find a solution to, to that problem. No single indiv individual can can live in. So collective waste, council being deals with it's a problem. So, suñ ñëwee guy designing di sànni it is a problem so I think the ward councillors yi dañ organise seen gox yi waxtaan ak nit ñi explain na leen di leen enlighten bañ understand the the issue of waste then then then I think then we will find a solution a lasting solution to to that problem. This naa ne right now collection bi mu ngi mu on time it it is it is little bit it is little bit better but there is always room for improvement so I think if if if there are more vehicles if there are more personnel you know, and maybe New Yorkers and salaries, you know, you know, maybe we can we can have a better better workforce. But I think that we just need to make sure that the council am ñu proper vehicles New new am schedule new schedule available new ñu zone Then then then ah gox bu nekk di nga xam ban ban time la ñoo mën a ñëw jël sa wees su ko nga xam ne kenn du jëlati wees bi diko diko diko ko di ko di ko lëfi si bi mbéera bi wax mooy ne li li li gën a nekk problème mooy nañ meeg so ne wees bi ñu ngi ko dajale ñuy dajale wees yi si biir kër gi su watu ah, su watu sànni bi jotee ñu sànni ko but I don't think it's proper ñuy jël wees Diko diko diko ko di ko sànni ci ci mbedd bi wala ci corner street seeg yooyu noonu ben tey yaa ngay environment because li tax ngay génnee mbali bi mooy bugguloo da nga bugg sa béréb set because of bugguloo fa am any jàngoro wala bugguloo yoo yeeg yooyu noonu waaye su nekkee ci mbedd bi it's going to be breeding ground for mosquitoes those mosquitoes will come back again to your house so it is still the same environment that you live in ndax sa biir kër la ndax ci boobu koñ bi is the same so li ñoo wax pour ñu make sure rek ne communauté bi understand nañ loolu ñu waxtaantee ñoom bañ ko understand bañ ci gis seen boppa you know su ko defee ñu ñu mën a then den den den den I think waste waste fu fu any la ñoo generate waste but the way we manage waste that is that is that is very key so we just how we need to learn how to manage waste you know so I think ne really that's that's that is all we need right now waaw because ah ku ku ku gis ah, capital city bu mel ni Banjul Yaya Jammeh nekk na fi 22 years so fa demee right now mënuñ laa woon any waste management vehicle bu ees bu mu jënda understand nga so you know and I think that for 22 years then you neglect Banjul was not was not his priority so you know right now it is, it is a new government and so we, we, we just have to work we just have to work within our means so whatever resources little bit resources we have we make sure that we, we put into good use ñu seen da dinañ mën i am three wala four wala five vehicles yes right now so so soo i fu mel ni KMC ak gis ne waste collection bi mu ngi mu ngi improve bu nga private ah, garbage amatuñ liggéey léegi bi ko seen moto yëpp a ngi garé so that is the kind of system buñ buñ bugg pour Banjul you know buñ bugg pour Banjul even ah, wenco bi fi ñëw tur mbalit I think it's about high time ñu seet naka lañ ko réhabilité mu nekk place bu ñoo mën a recycler waste because that waste bi ñoo généré sax mën nañ ko use pour pour generate electricity so these are things that we can we can look into you know as a as a community you live in Codden then government bi jàppale ñu ñu mun a ñu mun a nekk because ñu mun a segregate waste di ah, di leen di leen separate am nga paper am nga plastic am nga malo ah, maño beeg yooyu yëpp these are things that that can be done but we just have to start it step by step. li ma advice rek mooy ñu ñu seet naka la ñu mën a secure vehicles brand new vehicles ñoom ñoo ñu ñu ñu lijjanti brand new vehicles ñu seet naka la ñoo naka la ñoo naka la ñoo engage the private sector. because soo seetee tamit another problem bi Banjul am mooy bi fi dee ñëw maybe let's say 50 percent of the waste moom lañ dee generate fii locally waaye boo daaw 50 percent dañ dañ ko dee isiwaale from si biti because Banjul soo soo soo taxawee ci aaj bi suba nga gis trafic bi dee ñëw soo ñoo ñëpp dañoo dañoo dañoo generate waste so we should also encourage the business community pour ñuy contribute ñuy ñuy ñuy ñuy def seen quota in the waste uh, waste management problem biñ biñ am biir Banjul So it's not only council alone, even the business community, being I'm the Malena represent, I think that they, they should come on deck, banks, so including the, the, the central government. So I think that if, if we all come on board, then, then, then we can find a solution. Because that, that waste alone is not, uh, binyo ñoo do fii du du waa Banjul rek ñëw from si biti pour ñoo liggéey si Banjul dañoo génne waste te fii lañ fii lañ dee bàyyi bi so su génne dañoo dem so loolu yëpp council bi moom moom moo responsible and the community is paying for the is paying the price even right now so so they demee along the the business district Yeah, yaa ngi gis you you yëpp a ngi The fact that we're doing business in Banjul I think that we we have to really talk a GPA toog waxtaan ak ñoom You make sure that troxe say you know you you you finally final finally final ideal place for ñoom mun a rather than you know they ñëw di xatal you because troxe You know you have the fact generate waste understand nga bi ko suñuy gare fii dañoo jënda dañoo jënda dañoo jënda bagage yu bëri suñu paree li ñoo li ñoo li ñoo use dañ dañ koo sànni dañ koo sànni ci mbedda bi so I think ne boori bon road fële boori radio si ñu ngi fa identify loon place so I think it's about high time pour ñu engage the GPA ñu make sure ne anybody ko xam ne kii da nga a jël sa bagage nga kiiwee foofu noonu then when is your turn to come and nga ñëw ci port bi jël ko nga dem so I think that the business a gare permanently kuñ fa kuñ fa gis rek da war a ñëw di lifin ba pare even sax am na yenn time yoo xam ne waruñoo allow kenn muy ñëw di discharge ci ci yenn warehouse yi parce que koñ yi dafa xat su su koñ yi xatee da nga gis ne dafa tabee trafic flow bi dafa difficult su trafic flow su trafic flow bi difficulté dafa tax économique activité bi dafa dafa dem down te loolu dafa affect central government loolu dafa mën a affect local government bi loolu loolu dafa dafa affect ñëpp so liñ bëgg a daal mooy ne ñu make sure ne ñun ñëpp ñoo nañ on board all hands on deck ñu liggéey baañul jàppale Banjul Banjul dem ci kanam waaw stoos yi moom stoos yi stoos yi dafa am problème because Banjul Banjul dañ ko Banjul dañ ko war a zone Banjul dañ ko war a zone Banjul dañ ko war a zone fu a ñëw sampa store because is capital city Banjul should a city to live in it is not it is it should not only be a city to do business so zone bi ñu zone mooy the business district foofu allow nañ la pour nga def fa store But you make sure anybody who is temple store, let 30% stores, 70% be a residence. Because we want all our Banjul and Yideka combo, the Muna Nyo, Nyo Adekasi Banjul, New Develop Banjul. Then tax base Yoku, local tax base we Yoku, councils Muna collect more money, central government Muna collect more money. Why Bugunyo Re Banjul? We don't want Banjul to be a warehouse city. Banjul should be a capital to live in. Capital Dankode Dankode develop. Why capital do do ko do living so we should really discourage people new sampa store store yu So su ñoo sampa store fine let let 30 percent be stores Then 70 percent should be resident Anywhere Banjul boo maybe because i am going to uh, new liggéey Banjul bëri nañ so am na ñoo xam ne fii suñu fi proper accommodation they will come and live in Banjul because you don't have to pay for you know you, you don't have to pay for transportation so fuel consumption would go down and you know whatever you're making will be in your pocket so and I think uh, that is you know so if you have time to go through the NDP yooyu yëpp bokk na ci yi président bi wax so the president the president has the right vision he wants to develop Banjul he wants to develop Gambia yooyu yëpp mu ci NDP bi pour empower youth empower jigéen ñi liggéey Banjul so affaire yi Banjul du affaire yi politique dañ dañ dañ dañ passé foofu because Banjul nekk nañ fi years yoo xam nga man xam naa yaa jamee nax nañu so kii ñëw na moom waxut mu ngee def so kii wax da nga ko war a lifin te ki la faale da ko war a yëg ki faale na Banjul mu ngi liggéey Banjul su foog naa ne ñun ñëpp dañ ko war a jàppale képp ko am ne waa Banjul nga nga ne bëgg nga Banjul nañ toog ñu lijjanti ay projets lu projet bi tuuti pour defar vinaigre you know tomato paste there so many small nga ko def ci biir kër so yooyu yëpp ñun ñëpp we as a community we can do that to try to create uh, laan pour pour pour pour def agriculture so Banjul ñun lan lañ am. More businesses so we have to look into how we can get into value addition More empower you to train leen jox the necessary skills the necessary financing uh, financial support Big guys, soxla pour ñu ibbi doo small scale industries then they will make a living then dinañ mën dimbale then agriculture dina then mën dem kanam because we can ne li produce chi chi dex gi you ñu ngi fi am small scale industries yoo xam ne ñu ngi add value then then I think it's a plus for everybody then nobody will start to worry about employment because the youths we have to help them to to to get employment. because you know gis nañ naka la bitim réew mel léegi you know dëgg tubaab bi tubaab yi seen bopp bugaatuñ fa bugaatuñ fa gan yi you know so you know fii dañ dañ war a dimbale su nit ñi empower leen jàppale jigéen ñi because jigéen ñi ñoom ñoo amee société bi te jigéen ñi pare nañoo liggéey soo demee fu mel ni Tubakuloon am na des euh, kafo am na benn jigéen euh, bu fa nekk jigéen ñi seen seen ñoom ñoom ñoom yaa saaw they they they even know how to make this euh, omo and so many other products So we, we just need to help them to improve the quality and packaging. So and, I think the the the, the government the, government can really help them on that. ñu ngi gërëm président ñu ngi gërëm administration bi ñu ngi gërëm the minister of local government ñu ngi gërëm the minister of works Baye Lamine Diop ñu ngi gërëm minister of finance Mame Boudé Ndiaye waaye ñu ngi xasan gën di gërëm di because wan nañu ne moom waa Banjul la yëg na mu ngi koo def saa boo waxee moom affaire yi Banjul daf ci dee gis boppam lépp lépp loo lii bëggoon nañ ko ñun waa Banjul sax foog naa ne passé na ko because ku doon xelaat ñu defaral la yoon mu ñëw ne la léegi daf daf laa yoon yi yëpp so you know ñu cee sant yàlla ñu ko cee support ñu ngi ko wane ko bum bum bum gestu ñi ñiy jéem a lifin yëpp dañoo bëgg divert attention bi dañ dañ a capitalize so xëy na one way or the other fii lañ ne président bi contrôle na Banjul te mënatuñoo win Banjul so ñu ne cere jàngi ni xaaral ñu ko ci landslide in Banjul so kuy campagne li maa wax mooy jaru ngay sonal sa di ñëw fii nii xanaa nga jëlee ay nit ci biti ñu ñëw sànni la fii waaye waa Banjul waa Banjul tey su ma génnoon nañoo ci mbedd bi ñu am an interview just random sampling nga déglu opinion yi nit ñi te te te loolu moom mata moom ngay def li nit ñi bëgg a he's doing a good job am I will congratulate him I will thank him and we are ready to support him 100% there is no doubt that he's our man he's our guy he's our go-to guy he's a visionary am na focus he's developmental oriented pare naa liggéey am na pas-pas bi ba pare dara mënu ko dévier suñ la waxee yii yoon bi mu jaar bañ bañ ba mën a defar yoon bi World Bank bi IMF beeg yëpp jógoon nañ fi ngaaw ngaaw ngaaw no duñ ko liggéey mu jàppane daf ko liggéey Banjul la so whatever war war war war war war comme mais he's ready to to take the the consequences so loolu gis nañ ko ba ba ba ñëpp kontaan nañu so that is the kind leadership bi gis si moom so gis nañ ne waa Banjul la jàpp naa waa Banjul soo man li jógee ñu jóg su toogee ñu toog Banjul daal ñun ñoo ko boot ñun ñoo ko Banjul la ko boot 100 percent they we are behind the president because mu ngay represent interest yi mu ngay liggéey liggéey Banjul mu ngay jàpp Banjul so te ñun duñ duñ bàyyi loolu because ki fi nekk 22 years nax la for 22 years nga ñoo ko xam ne ki toog 3 years di defal li nga xam ne su ko woon a foog soo ko ko kooku ko jàppa you know ki nga xam ne ah, tooga na ba pare mu ngi laa a yëkkal ak ki ne demagul marché di lay dig ne la su demee marché ba ñëw su yëkkee dina dina la yëkkal ak ki ne dugg na ci waañ bi toogal na pare sa bool ngi tegu mu ngi laa a yëkkal foog na ne foog na ne boobu ngaa gën a óolu dan ki nga xam ne demagul dem marché bay ñëw beneen beneen tooga so ñu président bi lañ gis président bi lañ jàpp te we are li ma ko advisé mooy keep focus you doing job def ci Gambie yëpp gis nañ ko it's not only na saay bu moo dem too dama dem na fu nekk fu nekk Gambia gis naa li moo liggéey Yuwaraar gis na li moo liggéey Kiyang all over soo soo demee si ñu ngi liggéey yoon yi soo demee Basse soo demee Basse Basse Fatoto two three years ago it was very difficult pour nga jógee Basse pour ne da ngaa dem Fatoto it it would have taken you at least minimum two three hours but right now ñu ngi ko liggéey less than less than one hour mun ngaa jógee Basse nga dem Fatoto soo jógee Basse pour dem Wuli there was no bridge benn ferry lañ amoon. ferry woowu suñu daan dem to it would take us maybe benn one or two hours pour moto yëpp cross but right now within five minutes moto yëpp cross that is what is development so the lives of people in in those areas so leen laajee dañoo ne gis nañ development xam nañ naka la lifin mel because if you look at Gambia ñu ngi independence over 50 years so and I think that development should not only be centered ci benn area where development dafa war spread so so so check administration bi development baa spread wala li advise ko advice def Nako ko let him do it. let, let him do more bu mu bu mu xelaat waxkat yi because sooy sooy def lu baax dina am ñuy nekk sa boor pour wax waa waa pour pour dévier la pour pour pour génne la ci ci level bi nga nekk because xam nañ ne mënuñoo def li nga def so you know which is normal so when it's time for politics let us argue let us go and debate on the issues let us debate policy nañ debate policy nañ am nañ nañ debate with substance waaye toog di nga nga nga nga nga xuloo ngaayoo saagante bi xase boobu amul njëriñ mënut a kenn fenn. Gambia development la soxla Gambia liggéey la soxla su time lifi ne jotee su time élection jotee let us go back to the voters ku ci nekk ah, ku ci nekk debate ku nit ñi tànn nga nga xam ne kooku kooku mooy jiite ñu jàppalante ku dem waaye but we cannot be in the era of permanent campaigning and he's doing a good job we cannot even ask for more président bi dafa liggéeyal Banjul bañ ko laajutee su kooku moom jaratuta laaj because xam naa ne su yoon yi di jee yow sa boobu di nga gisaat yeneen projet xëy ci ay jëmi jamono dinañ toogaat dinañ waxtaanaat di gis leneen rek leneen lu mu fi isi bu ko xam naa ne xol bi dafa yaatu pare naa liggéey Banjul bu gën a fi isi lu baax fu mu dem any capital city bu mu dem mu ngi seet lana fa nekk mu mun ko isi Banjul soo ku laa defal loolu you cannot ask for more am nga ko fi nekk 22 years defalu loo mu ngi ñëw 3 la ko defal soo jaratul ne mu laaj soo la nga caalit bàyyi ko moom mu dem a sagom mu ngee def te laajuloo ko soo suy suy suy def kañ moom alhamdulilah because lu ma def ni ñu bëri yëpp foogoon nañ ne du am so ñu ramoon nañ ne dina am because it was a campaign promise te deliver na so and I know after lii tamit am na ne yeneen ak yeneen yu sew yuy ñëw so there is more to come dinañ gisaat moo dinañ defaat moo ku ci ne wax let let let us all come on board ñu liggéey Banjul Banjul lañ am suñ maamati maam yëpp waa Banjul lañ man suma maam ay maamati maam yëpp waa Banjul lañ so man I have no place but Banjul man dama am connexion biir Banjul Banjul dama ko bañ ba nga am ne every day ma am connexion dama dama dama dugg si capital city am ci soxla ak ñàkk a fee am soxla because I'm part of Banjul Banjul is part of me so ñun waa Banjul lañ so we want to see Banjul develop we want to see Banjul to be the envy of the whole sub region so ñun loolu lañ soxla so and I think that he's doing a good job ñu ko ñaanal ñu ngi ko gërëm ñu ngi ko ne let him just hold tight let's let's move the ball buñ hold back buñ lifin nekk ci gannaaw di ñu yëpp dañ bëgg ñu gestu ndax ñu delay soo gëstoo rek dañoo delay ñoom ñom dañoo xaw a win because xam nañ ne mu ñuy mën a so that is my opinion.